prison Macky Sall nekkoon démb ci hôpital bu Fann ngir nag lu jëm ñu dalloo ci li nga di service des maladies infectieuses bu Fann di tax mu yees moom ñu dëppaleeg jamono ma ne de le quotidien yéen kaay ñu fekkaat fañ ma ne Sall ngaar lamtooru burgëre prison Macky Sall ne covid bi ak kaayeg yokkute gi jamono ji ma covid bi ak faatam jar na bàyyi xel dëgg nag ñii di njaboot ñi nekk ci laa la wax ndax jamono ji moom président faatam lay def mu ne moo raw malakal mawti médical bi moom rek mënul def liggéey bi ci war te xeex boobee ñëpp ci mën a war a seen loxo ngir combat bi mën a réussir président Macky ci enquête ba tey de ne bàyyi leen xel ñiy faatu seen bakkan ci wadd laa wax président Macky li ko metti kay mooy ñi nga xamante ni jàpp feebar bi di covid amut te jamono bi nga xamante ni que explosion des cas covid bi bi yokkate kay ak faatu yi moo waral de moom njiitulu càmm dàqante li jàngoro ji mën a bàyyi a bàyyi ci a bàyyi xel la susu aane bàyyi xel kay dafa war a jot ndax nag ma ne lim baa ngi nii li nga xamante moo di covid 19 bi ci lim bi nga xam nag ñoom ñoo ci faatu la ilaha illa ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay test positif ñoo amee mbas mi dem ma ne tableau ba xonq na cooy de ci mbas mi de ak lim bi ni mu yokkoo critique yéen kaay ne lim bi sax de bu ñu moytul ci ñi ay victimes yu léegi rek ñu àgg quatre cent maanaam ñeenti téeméer ci deuxième vague bi ma ne vague bi moo gën a garaaw fu première vague ba ndax fi nekk nii ñu ngi ci trois cent quatre-vingt-quinze nouveaux décès ci talaata ji juróom ñoo ci yokkuwaat léegi rek ñu àgg ci ñeenti téeméer laa ci ñi nga xam ne ñu ak seen bakkan cëy lii ay fuñ jëm ak bii feebar la ilaha illallah loolee du ko fi xaar dana jël ay matuwaayam moom Sall Ngaar Lamtare Bourguédé yi fas yéene laa la wax jàppale waa kër docteur doole leen moom président Macky Sall démb lañ doon daloo laa la wax daax mu yees mii nag di daloo feebar yooyee di wàllante ca kër docteur gi di hôpital Fann di service des maladies infectieuses et tropicales mu ne président Macky Sall télévision Sénégal yi ni conseil national de gestion ci wàllum jàppale ak taxawu mbas mi moom mu ne ak Diouf Sarr santé war nañ leen a delloo njukkal nation bi ndax liggéey bi ñu def moom Abdoulaye Diouf Sarr ci l'observateur diggante ma Moussa Seydi neex ba des na de ma ne de ak déggoo moo ca amul seen biir ab impossible entente lañ caa nemmeeku l'observateur ni coronavirus bi ci réew bu Sénégal jamono ji de tragique dëgg la def ndax dañoo war a sauver koom-koom yi Dakar Times ne buñ sauver li ci daara ji de musiba naaruraay dana am ah kay ndax de bu ñu bi ñu gis ci no UNESCO indi na polémique wàllum sëy di éducation sexuelle ay ay ay ma ne éducation sexuelle ci daara yi Dakar Times ne loolee de moo jur polémique ci réew mi laa wax réew mi ko di jëne waaye Sénégal am nañ fulla ak fayda dañoo lànk kandaaral bañ ba tëdd sa naajo ma ne de le Sénégal di net à l'UNESCO waa ana ministre de l'éducation nationale ndax jamono jojee coow laa ngi ne cobbee askan bi nar jaxasoo ci mbir mu ni mel ministre de am ne de loo ci mën di dégg mooy suñuy réalité réew jumbo ci ay xaar baax ak niñ ko muulee cëslaay li ma ne xel nanguwul lu ñu mel ñu ko fi def waaye loolee bu amee daa fekk ne kuréelu syndicat gi ëmb nag waa g ñoo jug yëglu ca teel de lank kandaar moo taxit ci vox populi jamra daa di rafetlu bu baax a baax seen taxawaay de di tey de yemu ca de jamra di fàttali ne ñoom ndax jëglu woon nañ lu ñu mel yàgg nañ di ko yootal de ma ne lañ doon yootal la ba tey ñu koy doog a tudd waaye yàgg na atum moom de la vie très bien monsieur le ministre Mamadou Talla koloo la débat ma ne li nga xam ne koloo nañ ko wala sax ñu daal kaa gas suul bokk na ci donc dossier Aliou Sall moom Aliou Sall jamono jii de ak mbirum Petrotimba euh, ma ne dossier la jël gas ba mu xóot suul laa la nga def lu du du kenn ku doyen des juges nag ndax bi le de dafa jël nag laa ab ordonnance fësal ab non lié ni ki te moonte de Aliou Sall Mamadou Lamine Diallo Abdoul waa BP ak Cosmos ma ne day liñ ci waxoon lépp ak ci audition yi xoolal fa mu mujjee tribune yéen a kaay ne fi mu mujjee moom mi kay di Mansour mooy nag ca xàll woowee ñu duppewoon Charles de Gaulle ngir duppe ko prison Macky Sall kor Marième mii nee loolee du ca dal soxlawu ko tey soxlawu ko ëllëg cey li mim réew dégg nañ fi bërki démbo quartier Macky 1 Macky 2 Macky 3 ba 4 ñu bëggaa def xàllu président Macky Sall ca Charles général de Gaulle ay président Macky Sall yaa la nag bañ waaye xaaral sax ma foofu article 80 bi gars yi dañ cee gaaw de offense au